bi ma dalee politique ba léegi yaakaar naa lii ngi koy soog a def muy woo waa Ndindi ci ndaje mu toll nii te bi ma leen wooyee ñëpp ñëw ngeen man nag boo gisee lu tax sawuruma woon ci di woote ay nit parce que ay jigéen ngeen te ar buñ leen woowee da ngeen di bàyyi seen liggéey bàyyi li ngeen di def lépp ñëw fii nga xamante ne euh, mooy ci réunion yi def fi seen temps te ar waroon na leen fekk ngeen nekk di togg ay reer wala leneen ak leneen ngeen bàyyi yitte yëpp ñëw. loola nag yaakaar naa ku koy defloo ay nit da leen teg ci lu wóor soog koo defloo nit ñi moo taxoon woote boobu sawur ma ca def parce que nag di dajeeg ay nit di leen nax loolu amul njariñ li gën mooy ab koñ boo fa dëkkee nit ñi respecté la rawatina lii nga xamante ne wan ngeen ma ko tey ndax yaakaar naa lii bokk na ci cër ma wootee loo xam ne tey rek laa ko xalaat te bi ma wootee yéen ñëpp ngeen ñëw wuy si ma loola yaakaar naa ne lu am solo la kon nag maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen xamal ne am naa mbégte lool. man nag si sama jëmi bopp li ma tax a jóg mooy jàppale leen li ma tax a jóg mooy fexe ba lépp loo xamante ne ku nekk mu ngi koy xeex ci goxam lu ne ku ne mu ngi koy xeex pour am ko man ma xeex ko pour am ko sama gox bii fi fi ma dëkk ndax tey jii sos ngeen ma lii ngeen def nii sas bu rëy la te sas wii nii yaakaar naa li ma leen ko mën a fayee mooy jëf fexe ba di xeex di indi fii nga xamante ne fii laa dëkk ndax kenn wérante wul ne amul ay làmp làmp yi benn tàkkul kenn wérante loolu noonu kenn wérante wul ne fii nga xamante ne fi lañ nekk dañuy fàtte ci lu bëree bëri lu ñuy séddal lu ci bëri ñun ñi nga xamante ne ñoo dëkk fii ñuy mujjee am ci la ñuy bokk te yaakaar naa ne ay jàmbaara fi dëkk ay jigéen ñoo xamante ne ñu gëm seen bopp lañ ay jigéen yoo xamante ne ay ay jigéen yu nekk jàmbaar boo demee ci marché bi ña nga fa nekk di liggéey di daan seen doole kan kon li war mooy fexe ba jàppal leen ci ay financement man nag li may def jëm jamono ji ñu toll ni ànduma ak kenn ki ma àndaloon mooy président Madické ndax man yàlla def na sama âge bi may nekk vingt am vingt trois ans laa nekk conseil départemental dugg ci list bi nga xamante ne mooy liste PDS loola yaakaar naa du doonu doonu lu ndaw ba pare ma nekk xale bi nga xamante ne moo gën a ndaw ci conseil départemental yi nekk Sénégal man maa ki nga xamante ne maa ci gën a doon xale kon nag loolu yaakaar naa ne ndimbalu yàlla suñ borom la lu ma yàlla suñ borom defal beneen affaire bi nga xamante ne moo ci des ma nekk PDS ànd nekk ki nga xamante ne mooy porte parole UGTEL Touba ma nekk lu toll ak juróom-ñaari at yoo xamante ne ndawi Ablaye Wade yi nekk fii ci Touba man maa yore seen kàddu bu ñuy wax man maa leen waxal te loolu tamit xanaa yaakaar naa doonu lu ndaw te lool li ma ko may mooy sama gëm-gëm li ma ko may mooy sama farlu li ma ko may mooy lu ma nekk rek ma ànd ci sama gëm-gëm wane ko ba mët sëkk ba loola nag candidature Karim wadd bi nga xamante ne Macky Sall téye na ko na jàllu Karim Wade jàllut loolu nag wax dëgg yàlla ma xeex ci la nga xamante ne moom laa man fu ñu wootee mars ma dem ba ma dikkee ñaa jugee na nag day doon candidat ma jug taxaw na dama koy jàppale ci wàllu parrainage am parrainel ko parrainel bu bëree baree bari mboolem li ma ko parrainel bëri na ñoo xamante ne tey ñi nga ànd ak ma dikkee jege ko lool sax li ma ko parrainel tey parrainel luñ ko président ma dikkee te lool lima ko may mooy sama jom lima ko may mooy sama fit li ma ko may mooy sama gëm-gëm kon nag bi ma àndee moom li ma ñor man ku may àndal soxluwuma ab xaalis boo xamante ne da nga koy yëkkati dama ko jox may def sama poos man li ma soxla loo xam ne da ma ko jox ma ñëw indi ko bokk koog ñi nga xamante ne ñoom laa bokk dëkkal ma bokk koog ñi nga xamante ne ñoo nekk si gox bi bokk ñi nga xamante ne ñooy jigéen ñi nga xamante ne aar bu ma wootee ñu ñëw wuy si ma ndax yaakaar naa li ba ma fa nekkee gisuma foofu sama bopp gisuma sama bopp nag mooy ñi nga xamante ne ñooy samay jigéen gisuma benn programme boo xamante ne def nañ ko pour ñoom gisuma sama bopp gisuma benn programme boo xamante ne def nañ ko pour Touba gisuma benn programme boo xam ne def nañ ko pour jigéeni Touba ëllëg ci jafe-jafe yu métti yi ñuy dundu di xool li gerte lu ne ñu koy daj di sonn ndax ay liggéey liggéeykat lañ te ñu war leen a jàppale. loola nag doon lu ma métti nag ma jug ma jug fa yéene taxaw loola nga xamante ne mooy seen jafe-jafe mooy dind ko jafe-jafe yooyu nan laa koy dindee candidat yi nga xamante ne ñu ngi fi mooy candidat yi fi nekk candidat bu ci nekk dinaa taxaw xool sa programme. ndax bëri na ñu ma ci woo bëgg ma ànd ñoom liggéey waaye man ñii laa am ñii laa am ñii ku ma leen jàppaleel ma jàppale leen man Cheikh Seck moo ma sama bopp man ñii laa am muy jigéen ñi nga xamante ne ñooy jigéen ndindi ak ñi nga xamante ne ñooy ndaw ñi ndax sonn nañ te bëgg naa ñu leen jàppale ci ay financement li nga xamante ne dafa doy mooy politiciens yi di ñëw tey gisoo leen fi benn politicien ñëw fi loolu man maa ko si parce que politicien bu fi ñëw jël say nit filma leen ànd ak ñoom dem te amul benn njëriñ loo xam ne nañ ko def lu dul ay digg kase loolu nag dafa doy man nag li may def mooy li may def mooy sama mbooloo mi buñ ko gisee man leen mbooloo maa ngi nii léegi li ma bëgg nag mbooloo mi du mbooloo moo xam dañ leen yeb ci kaar wala fu leen neex ñu leen fay jëmale mbooloo mi da ngay ñëw taxaw ay projet yoo xamante ne ku ci ne dina ci mën a gis sa bopp mën a jàppale say njaboot nag kenn wérantewul na jigéen ñi nga xamante ne mooy jigéen ñi li Sëñ Fallu ay jàmbaar lañ ay liggéeykat lañ ay dañ leen a war a jàppale moo tax ma jóge ci coalition ma dikke ba ma nekkoon ndax xam naa ne coalition boo coalition boobu doonu coalition buy dem fenn coalition boobu coalition caaxaankat lañ ndax defuñ benn programme boo xamante ne mën nga koo déglu ba gis jigéen ñi si seen bopp ci coalition boobu noonu looloo tax nag ma jël samay matuwaay jël sama jël sama taxawaay nelawatuma li may def mooy jigéen ñi Ndindy am ndam li may def mooy jigéen Ndindy jëm ca kanam ndax yiñ leen ndax dafa yomb bu ñu ñëwee dajale leen teg leen ay caméra ñëw na leen jàppal leen candidat nangam candidat nangam jox leen aw fukki junne loolu amul njariñ li ñuy wax naan olof njaay di wax naan jàngal jàngal jàng may jën may jën nit maanaam jàngal ko nuñ koy nappee moo gën parce que boo ko mayee jën mu jeex amul njariñ kon li gën mooy nit muy jigéen ñi da leen defal ay formation wan leen yoon wi nga xamante ne fa lañ war a jaar ba li ñu bëgg ñu mën koo am mais jëlee jigéen di leen duy ci cadre di leen solo ay xartuma ki wax si loolu dafa war a jeex jigéen ñi dañ leen a war a jàppale ñu liggéey dañ leen a war a jàppale man nag man nag man nag jug naa man man nag jug naa jug naa fas yéene def nag loola ma fas yéene koo jeexal jug naa jug naa ma fas yéene jeexal loola noona la nga xamante ne mooy sama wërteef la nga xamante ne mooy sama taxawaay ak la nga xamante ne moom laa war a def mooy fexe ba jigéen ñi nindi ma fexe ba def fi loo xamante ne benn politicien musu ko fee def te incha allah nun laa ko fas yéene def jàppale leen ba xam ne ne jàppale naa leen loolu dinaa ko def ndax tey gis naa lii ngeen def nii tey doonul lu yomb ndax ndaje mi kat tey ci suba dong laa ko woote te fii mi ngi ñëw gis nga nit ñi fi ñëw kenn mun laa wax ni toll kon nag maa ngi leen ciy sant bu baax di leen gërëm di wax ne aw ma seen fay aw ma seen fay yéen ñi nga xamante ni yéen ñi sama xol sedd na trop ci yéen